moo tax moo tax sénégalais yi euh, euh, bu ñu ci jàppee parce que xam nga état dafa diis te comme ni nga koy waxee fépp ay méttandoo kon donc il faut fii ba at bi di jeex. Mhm. Euh, danañu saafara yenn affaires yi. Mhm. mais du doon totalement. du doon mais fi ñu joxee Sénégalais yi dëgg dëgg dëgg rendez-vous c'est à partir du budget de deux mille vingt cinq. parce que su boobu budget boobu ñun ñoo koy préparer. Siré dans l'allocation des ressources mm -hmm. dans le choix des politiques publiques stratégiques et prioritaires mm -hmm. parce que li nga wax ni euh, c'est c'est c'est très difficile nga ñëw fekk budget bu ñu voté mhm. orientation yi ñu def arbitrage budgétaire bi ni ñu ko defee mhm. yow nga war a mën ñoom seen i priorité yi ñu jëloon priorité te yow yaa ngi fàttali ci élection la ñu nekkoon voilà te ñoom <laughs> Macky Sall ji boppam mhm. moom xamoon na ni élection yi pare na ci te xam nga Macky moom day saboté day comprendre et d'ailleurs premier sabotage bi mooy euh, euh, ñun li ñu tuddee en finance publique le budget n'est pas sincère. le budget n'est pas sincère. waaw c'est que ñoom bi ñu ciy dugal loolu xamoon nañ ni loolu du ñëw léegi ñu dugal ci loolu daal di doo ko def seen i prévision daal di wax est-ce que comprendre yow loolu bu ñëw rek dangay ngay handicapé. xam nga yow tey soo ñëwee ne la. kon gis ne Macky da doon saboté. non da doon saboté moom ñoom ñoo tey def ci moo tax bi ñu demee euh, FMI en réalité. Euh, FMI euh, waxut ak ñun fondamentalement de déedéet xam nga FMI lan la wax fondamentalement dafa ni budget bi ngeen yor ren euh, presque trois mille milliards mhm. da ngeen a prévoir woon seen revenu pétrole ak gaz kon donc yéen am na ay dépenses yu bëri yoo xam ni defoo leen ko sur la base des recettes domestiques comprends nga fiscalité mhm. port douane ak fer noonu noonu mais yéen da ngeen ko taxé ci luy dugg. luy war ñëw ca pétrole. te loolu dootul ñëwati ren kon donc li ngeen jot a am. xoolaat leen ko ngeen gën koo tas yaatalaat affaire yi ndax la dootul ñëw ba keroog ñuy àgg fële et moo tax bi fan yi passé nga gis banque mondiale. Mhm. libéré na benn montant bu xaw a mhm. consistant. Mhm. pour ñu mën a corriger écarts yooyu ce qu'on appelle les écarts type. comprendre maintenant sénégalais yi dëgg dëgg dëgg c'est à partir de deux mille deux mille vingt cinq euh, ñu voté euh, moo tax il faut impérativement assemblée nationale ñu majoritaire fa. il faut mën a mën a passer mais il faut un je sais pas comment on l'appelle une bonne euh, communication pour que sénégalais comprendre. absolument les situations bi. absolument le, le président Bassirou Diomaye Faye ak absolument. Euh, premier ministre Ousmane Sonko fekk réew mi mais mais mais loolu tax sax man ma toog fii parce que <laughs> xam nga parce que euh, nit kii quand même parce que damay toog euh, fan yële dama xawoon toog sama roq tuuti mais après bi ma gisee ah oui la nature des débats Euh, ma xam ni les gens peut-être euh, et c'est normal ah parce que Ousmane Sonko fi mu ñu jëlee la c'est normal que les attentes soient fortes aussi comprendre nga euh, ñu bëri dañuy wax la réalité du pouvoir. Euh, c'est la réalité de la situation en fait. Mhm. Ousmane Sonko fi mu ñu jëlee dañu sonnoon xam nga Wolof Njaay day faral di wax ni ku xiif. doo ko ni toogal damay togg. déedéet da ngay yekk jox ko. boo yegsee rek moom. très bien tegal ko plat. leel très bien foofu nañ ci toll. c'est-à-dire que on est de très loin. mais malgré on est revenu de très loin danañu yekk jox leen. mais ñam la mën naa bañ a neex neexaay bi sénégalais yi tàmm. est-ce que mais lu téye biir bi rek. en mais dana mën a téye biir bi cest dire que. Euh, fii ba fin dat danañu dundal mais à partir de vingt cinq nag danañ commencé dund xam nga borom kër euh, des fois situation day am moom day dundal. Mhm. bu situation amee nu mu mel nag comprendre mu doog a dund dafa am différence entre dundal ak dund. ak dund waaw. waaw fi mu toll nii situation bu catastrophique nañ fi fekk donc li ñuy mën mooy dundal. ñu comprendre ñu am ci luñ téye gum rek. voilà très bien te pourtant euh, dundal boobu sax les gens su sont coupés les quatre veines. Hmm? bu doon ñeneen wala mu doon faneen musiba la waxatuñu ko. cest que mais heureusement. Mhm. Sénégal sunu borom da koo bëgg. Sénégal sunu borom da koo bëgg parce que des fois mu compliqué euh, da koy xool man dama koy xool ci man. man des fois affaire yi compliqué compliqué compliqué compliqué dama naan mais man weer bi nan lay def ba génn ci sunu borom di dogal weer bi jot ma génn ci allègrement ba mujj damay toog naan waame man nan laa def ba génn ci weer bi quoi <laughs> ak charge yi ma am yëpp mhm. te yooyu te pourtant à dix jours euh, euh, xamoo nu muy demee ni waykat bi doon wax doo xam sax nu muy demee mais suñu borom mooy def ba bu jotee ni këtt ni jonn moom mu def ay pexeem ba nga génn ci loolu. Mm-hmm. lu gàtt ci leneen. Mm-hmm. pour le moment nag man. Euh, spécialiste de finance publique mais euh, gis ñoom Ousmane Sonko di dawal. waaw euh, li ñuy def ni sax mënuñu ko. yàlla leen di dimbali rek di leen inspiré ba ñu ciy génn. dafa difficile un sénégalais lambda comprendre ne. Sénégal mm-hmm. dafa nekk situation bu économique économiquement. quand on se permet yenn euh, yenn infrastructures yi lu mel ni terre. lu mel ni BRT. Mhm. Euh, euh, Sénégal yu bëri ñu jàpp ne. Mhm. Euh, ci régime Macky Sall le pays est liquide. Mhm. et que mu ngi génn muy génn Sénégal bàyyi na fi xaalis. au contraire bàyyi fi dara. lu fi lu ay dette nañu fi bàyyeel la majeure partie. Hmm? la majeure partie des projets de Macky presque ay endettement la. Hmm? yu ama ama ama ama ama solo leneen li ñëw ñu sàcc ko dem ak moom li ci des ñu def ko ci kii bi je suis d'accord hein tout pays se développe par l'endettement même entreprise yow yow tey jii en tant que entrepreneur. Mm-hmm. soo yoree 1000 francs en économie tu ne dois pas investir les 1000 francs. Mm. danga war a investir 500 yeneen 500 yi nga dem def lebi banque noonu la ñuy fonctionner économie. mais bonne façon endettement bien mais l'endettement bi ñu fi Macky bàyyil. Mm-hmm. par rapport ak compte d'exploitation yi ñuy am ma jox la benn exemple rek BRT. Hmm. on s'est endetté pour defar lépp ñu ñoo defar lépp ba mu des exploité exploité de. exploité muy dawaka dem muy dawaka ñëw bale fobeere hmm. euh, dugalaat ndox joxe ci branché courant nettoyer exploité quoi waaw moo xam ni c'est la partie la plus facile de li ñu def hmm. ñu dem jox ko ay multinationales ne ko yéen gérer leen pendant sa temps là ñu bàyyi fi ay aftu xam nga loolu lan lay créer après cest dire que euh, plus-value mm-hmm. yu BRT di war a mënoon a génne. dootu ko génneeti. bu ko génnee ba pare après day dem. du dugub du des ci Sénégalais du des ci Sénégalais yi et d'abord loolu mooy du point de vue opérationnel ou opératoire. Mm-hmm. mais du point de vue conceptuel. BRT am na ba pare. Mm-hmm. il faut faire avec mais ça a été un mauvais projet. économiquement s'entend tey jii su ma doon président de la république duma defar BRT. xam nga nu may def damay woo waa AFTU ñu nekk ci transport bi. Mm-hmm. Sénégal bu ngeen xamoon expertise bi mu am ci transport public. Mm-hmm. damay woo waa AFTU ne leen bi dafa xat léegi désormais dama bëgg fii ba Géejawaay dix minutes yu ne. Mm-hmm. benn oto jóge fi dem wax leen ma li ngeen soxla ma defar leen ko. ci fréquence très bien cest di dire que ñoom waa AFTU. Mhm. am nañu expertise boo xam ne danañ la wax ne léegi jaratul ay BRT yokkal tali bi financé ñu temps de temps ñoom ñu organiser seen propre marché gis nga tey BRT bi yeneen voies secondaires yi. waaw bis bu benn oto paanee rek kenn dootul. day fattu complètement est-ce que comprendre nga ça pour lépp lu ñu investir foofu on aurait pu avoir mieux. tout di fait que tey jii boo ko joxoon waa AFTU yenn zones yi. au lieu ngay def BRT ñoom mën nañ la defal tunnel mën nañ leen léegi pour circulation mo ne damay wax nii rek mhm. ak sama expérience li ma gis ci bitim réew mën na leen ni par exemple zone yi fii ba fii tunnel lay nekk mhm. ñuy daw ci tali bi di daw ci suuf comprendre loolu moo gënoon sax BRT donc ñun projet yooyu nañu hérité mhm. c'est-à-dire que les choix stratégiques defuñu ko mu engloutir beaucoup d'argent donc la finalité est très discutable mm même si c'est important maintenant comme état continuité la comme li nga expliqué sa yow yaakaar nga ne Ousmane Sonko euh, dina jël mille milliards wala mille cinq cent milliards. même di ko di ko def ci terre boo xam ne cinq kilomètres la mhm. yow. alors que avec ce même montant nga mën ci relier Sénégal yëpp mu nga yow nga xëyee dakaar dugg train dem Fuuta jaar Kédougou jaar Casamance jaar fu ne ak ci biir réew meeg yooyu loolu euh, euh, mën na ngay defe dinañ ko def ak yooyu sa veut dire que même ci choix économique te yooyu c'est des projets yoo xam ni on va les rembourser sur trente ans. quarante ans kon kon Siré ma la déggee. liñ fi def nii yëpp. très bien rafet na ci bët nii. rafet na ci bët rafet na. ci dëkk très bien mais amuñu ci dara wala. Euh, c'est-à-dire que on aurait pu avoir plus et mieux. Mhm. que li ñu am nii. est-ce que comprendre nga. tout angle stratégique bi sax tant que Dakar reste Dakar. Mhm. am benn macrocéphalie. ak loo fi mënti def. ak loo fi mënti def da nga yokk karaw ci xar mi rek da nga yokk problème. mais est-ce que comprendre mais doo régler il faut dégager Dakar. il faut désengorger. désengorger Dakar. comprendre wut ay pôles territoriaux et c'est ça qui trouve dans le projet des pôles territoriaux. Mm-hmm. tey jii avec euh, chemin classique oto Mali yi c'est inadmissible ñu agsi ba ci port de Dakar. mën nañoo yem Tambacounda lan mooy yóbbu. Mm-hmm. mooy euh, c'est-à-dire que même l'intelligence teritoriale bi ñu fi Macky lu bàyyil dafa ñuy indil problème parce que tout a été concentré Dakar au lieu que ñuy euh, maanaam nu ma la ko mën a expliquer mooy ñu nekk vingt personnes. waaw ñu bëgg a fanaan ci benn néeg saa yu problème dafay am. waaw mais par contre bu ñu amee intelligence ni léegi nañ tabaxaat beneen néeg ci kaw néeg bi su boobaa ñenn ñi dañu mën a dem ci kaw est-ce nga. mais doo jël pexe yëpp ne ko ci et cetera et cetera loolu lañ fi Macky bàyyil pour l'essentiel et que li gën a graaw chez Macky Sall ce qu'il n'a pas compris. Mm-hmm. ci yeneen dëkk yi il a fait des choses hein, il a fait des choses euh, intéressantes du point de vue économique. Mm -hmm. sur le plan de l'électricité il a fait des choses. Ouais, formidables ouais, sur le plan de l'accès à l'eau il a fait des choses. Mm -hmm. extraordinaires sur le plan de la il a des choses extraordinaires magnifiques de la construction réservation des euh, il a fait des choses magnifiques sur le plan social. bourse de sécurité familiale c'était magnifique même si après am na dévoiement. Mm-hmm. donc il a eu de belles idées. mais souvent c' dans la mise en œuvre mm-hmm. que li mu ñuy coûter finalement da naan est ce que lii sax jaroon na ko. ci exécution bi lay poser problème. non seulement ci exécution bi lay amee problème d' ailleurs moo tax yenn chantier yi euh, muy am ay surfacturation muy yàgg ay université yu ñuy tabax pendant dix ans vingt ans mënul fexe ba pare muy am ay coûts yu extrêmement élevé mais li ñu tuddee efficience euh, li ñu l' efficience. c' est à dire que Macky Sall au lieu d' être dans